tey jii kuréel bi ñu naan secretaria politique exécutif national bu AFP moo doon daje maanaam mooy kuréel bi nga xam ne moom mooy kuréel bi ëpp dayo ci biir AFP président Moustapha Niass nag moo euh, tey moo jiite euh, ndaje bi nga xam ne def nañ ko fii te ndaje bi dafa am solo ndaje bi dafay euh, dafa boole ñi nga xam ne fan lañ jógee ci congrès lañ jóge waaye ñi ngi jógee ci 588 collectivités territoriales gox yeeg goxaat yi nga xam ne ku ci nekk dafa am ay délégués yoo xam ne dafay yéeg yéeg yéeg ba yegg fi ñu naan secrétariat politique exécutif national kuréel boobu nag moom mooy waxtaan ci ay décision yoo xam ne dañu naan ah kii de tànneef la wala lii la wala lee la Euh, bu ñu ci paree ñu jël décision boobu ne décision boobu mooy décision alliance des forces de progrès ñu wax ci en tant que porte-parole li ñuy jàpp tey mooy waxtaan nañ ci lu bëri waxtaan nañ ci àdduna waxtaan nañ ci bitim réew li fa xew parce que lépp lu xew ci bitim réew dañu jàpp ne Sénégal daf ci bokk parce que Sénégal dafa bokk ci àdduna donc waxtaan nañ ci waxtaan nañ ci euh, situation sécuritaire maanaam kaarange waxtaan nañ ci koom-koom waxtaan nañ ci lu bëri loo xam ne ay euh, yoo xam ne la ñun noonu lañ tàmm liggéeyee parce que booy liggéey dangay liggéey ci li xew ci bitim réew liggéey ci li xew ci biir réew mi waxtaan nañ itam ci mbirum koom ci biir réew mi waxtaan nañ itam réew mi ni muy doxee ak yu bëri yoo xam ne tey euh, président Macky Sall ak gouvernement am ñu ngi ci liggéey ñu waxtaan ci ay ponk yu am solo ponk bu njëkk bi gis ngeen waxtaan bi nga xam ne doomu Sénégal yëpp ñoo ko pencoo muy li ñu naan dialogue national maanaam ñu daje pencoo waxtaan bi waxtaan ci lépp li nga xam ne mooy euh, fi Sénégal war a jëm ëllëg donc ci loolu ñu ne ah secrétariat politique exécutif ñi nga xam ne ñoo fa nekk ñëpp ñu ngi représenté alliance des force de progrès jàpp ne ñu ngi félicité président Moustapha Niass mi nga xam ne kat ah bi mu teyee ci dialogue bi te dialogue bi tamit yàgg na bi mu tàmbalee dialogue bi ci ay ay bés yu gàtt la dialogue bi pare conclusion yi mu jëbal ko président de la république ci loolu itam président de la république bi mu jëlee euh, conclusion yooyu ah mu xool càmbar xool li ci biir déglu ñi nga xam ne wax nañ également ci biir dialogue boobu ci loolu mu jël décision keroog bi muy waxtaan ak askan wi am na lu am solo lu mu wax te li ci biir li mu li mu wax yëpp secretariat politique executif AFP félicité ko ci ñu ngi ko ci jaajëfal parce que ay décision loo yoo xam ne ay décision yu am solo la yoo xam ne ko jël na ko ci biir réew mi maanaam kaaraange biir réew mi maanaam ndaw ñi maanaam maanaam jigéen ñi maanaam lépp looy koom-koom ci biir réew mi ak leneen itam mooy élection yi di ñëw président Macky ne moom bu fekkee ne samp ndënd la du samp ndëndam ci élection yii di ñëw février 2024 ñu rafetlu li nga xam ne wax na ko ci ñu gis ne que bitim réew rafetlu nañ ko waa Sénégal rafetlu nañ ko alliance des force de progrès AFP secrétariat politique exécutif rafetlu na décision boobu muy décision boo xam ne historique la maanaam musul am ci Sénégal donc ci loolu ñu ne décision bi mu jël nag dafay am ay conséquences conséquence yi mooy lan bu ñuy dem ci élection dafay am ay tànneef tànneef yooyu ñun AFP foog ñu wax naka lañ ciy demee ñu am ñaari coalition muy coalition Benno Siggil Sénégal ak coalition Benno Bokk Yaakaar yoo xam ne ñi ngi ci di ci liggéey am suñu parti suñu parti nag bi ñu waxtaanee ñu gis ne jàpp ne lenn benn képp koo xam ne da ngay dem élection su fekkee ne da ngay dem ci da ciy dem ci féewale ah xalaatuñ ne di nga mën a gagné élection donc pour dem élection foog nit ñi booloo am benn candidat bu ñu amee benn candidat ñëpp topp topp ci ginnaaw candidat boobu fexe ba candidat boobu gagné ay élection pour que coalition bi continuer tamit di yore Sénégal donc ñu ne alliance des forces de progrès dafa ne conférence de leaders maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite parti yi nekk ci biir benn Bokk Yaakaar yore li ñu naan conférence des leaders leaders yooyu ñu ne nañu continuer waxtaan bi nga xam ne ñi ngi koy waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy candidat pour élection yooyu candidat yooyu nag jóge nañ ci parti yu bëri waaye say candidat la yoo xam ne dañu war a continuer di waxtaan ak ñoom pour lan pour trouver benn candidat boo xam ne moom mooy représenter Benno Bokk Yaakaar ñi ne nag ci biir loolu li ñu si jàpp ñu ne wax nañ ne que suñu continuer képp koo xam ne tànn nañ ko muy benn candidat alliance des force de progrès dina topp ci candidat boobu jàppale ko ànd ak moom fexe ba candidat boobu gagné élection yi di ñëw février 2024. loolu mooy ci gàttal li nga xam ne waxtaan nañ ko fii ci secrétariat politique executif AFP te muy li nga xam ne lañ leen a bëggoon jébbal ci. waaw xam nga mbirum candidature dafay am dafay am lu dafay lu am solo mais dafay loo xam ne dañ ko war a liggéey si suñu biir maanaam candidature du loo xam ne dañ koy fësal candidature euh, bu bu bu bu yembee rek. foofu la ñu tàmbali naan nañ ko fësal ne kii mooy candidat bi mais balaa nga xam ne balaa candidat di am ay candidature dañu am jógee ci parti yu bëri mais li ñu jàpp ñun mooy que bu kenn fëlee rek que mu jógee ci allié yi que mu jógee ci APR bu kenn fëlee rek kooku dafay nekk candidat Benno Bokk Yaakaar dootul nekk candidat wu parti bi wala candidat wu parti bi moo tax mënuñ précisément wax leen ne ñun suñu candidat kii la wala tel parti candidat kele la li ñu li ñu jàpp rek mooy que dañu wax ne leader yi nañu continuer waxtaan ak candidat yi bu ñu waxtaanee ak candidat yi jël profil ki nga xam ne jàpp nañ ne tey jii nii Sénégal bi yëpp bu ñu ne kii mooy suñu kandidaa nit ñi ne gongo euh, votel candidat Benno Bokk Yaakaar mu gagné keroog ca février 2024 donc daal li ñu jàpp rek ne que ñun pare nañ continuer ci liggéey bi pousse leader yi pousse également président Macky pour que ñu def choix bi nga xam ne moom moo gën a baax choix bi nga xam ne moom mooy permettre ñu gagné élection yi di ñëw incha allah